lan la ab chrétien boo bokkee ci njaboot bi lu war a def bu mu feebaree dafa war ñaan ci yàlla te yàlla dina ko wàlloosi ci feebaram def lu gën ci moom waratul kay dem di ñaan ci turu nit wala mu dem sakku ji ci yeneeni maanaam ci xërëm yi maanaam ci sëriñ yi maanaam ci jabaraankat yi déedéet yàlla kañ ku am sañ-sañ la pour wéral nit ki te ku am doole la ñaanal borom bi te dinga gis ndimbalam ci sa dund te Jésus dina ñu ñëw pour aar pour may ñu jam ci lépp lu ñuy ragal